validation wu candidature usman Sonko moom mooy tête de liste proportionnelle euh, bu Pastef euh, ci liste national yi moom Ousmane Sonko nag daanaka euh, déposé na li nga xam te ne moom mooy mémoire bi mu nam tekk ngir indi tontu ci coalition takk Wallu Sénégal mi dugaloon recours boobu lépp mbir nag ñu ngi ko saisiroon juróom-ñaari fan ci octobre bi ñu weesu ñoom waa takk Wallu saisiroon conseil constitutionnel jëm ci candidature Ousmane Sonko ñu jàpp ne am na yoo xamante ne daal mu war mën a tax euh, Ousmane Sonko nekk tête de lañ ca gën a sukkandiku rek moom mooy euh, condamnation par contumace euh, bi ñu tekk ak tamit li nga xam moo di condamnation bi ñu teg ci kawam dox ci digganteem ak Mame Mbaye Niang li ni mel nag tax waa takk wàllu dugal recours leneen itam ci recours bokk na ci wàllum parité bu ñu jàpp ne waa Pastef respecté wuñ ko ak la nga xamante ne dippee nañ ko coalition Pastef ñeel ci parti boobu le li ni mel nag avocat wu Ousmane Sonko daal di nañ ci yéeyaa bi ñu jàpp ne coalition Pastef moom d' abord nekk loo xamante ne lu existe la et lu jëm ci motif ya nga xamante ne ñu ngi koy toppee waa Pastef euh, lu jëm ci élection yi ñu dëgmal bokk na ci li nga xamante ne moom mooy condamnation contumace bi ak lu jëm euh, ci diggante Mame Mbaye Niang ñoom daal jàpp nañ ne yi mel dëgërul ndax euh, laataa ñu si doon yegg euh, daal di woon nañu vidé lu jëm ci dossier contumace bi ak la ca juge coon waxoon waaye tamit lu jëm euh, ci am amnistie bi nga xamante ne effacé na lañ doon toppee daane ko Ousmane Sonko ci digganteem ak Mame Mbaye Niang donc yooyee bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, recours yu ñu dugaloon ak mémoire de réponse ak argument yi nga xamante ne euh, avocat wu Ousmane Sonko daal nañ koy teg lu jëm ci parité bi ñuy wax nag ñu jàpp ne euh, Hady Gueye boobe ñuy wax du góor waaye jigéen la kon noonu la ko avocat wu Sonko yi daal di xamle li ni mel nag tax na ñu jàpp ne la ñuy toppee Ousmane Sonko ngir mu bañ a doon candidat nekkul loo xamante ne lu wër la buñ sukkandikoo ci ay avocat am yu dipp yu béy ci ab foofu la ci taabalu conseil constitutionnel la Ouzin kon mu mel ni bu sukkandikoo ci avocat wu Sonko daanaka am na ay sens ngir mën a continuer nekk tête de bu passif. waaw waaw bon en fait parce que euh, bu fekkee ñoom dañoo sukkandiku ci kaaw Adji Sarr bon loolu fëte woon na boor. Hmm. bu fekkee dañu sukkandiku ci li nga xamante ni moom mooy affaire euh, Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko man jàpp naa loolu bokk na ci loi ñu amnistier parce que mine de rien aussi ñi ñu jàppoon ni euh, c'est personnel mais ci. Euh, daan bi euh, jàpp naa ni euh, daanu pénal la en fait maanaam yoon moom moo décidé pour daan ki nga xamante ni moom mooy moom mooy Ousmane Sonko de diffamation mais bon am na nag lu ci raxoon politique loolu moo tax ñu boole woon ko ci dem loi si bon jàpp naa ni xëy na kaawu Barthélémy Dias moo gën a moo gën a délicat que kaawu Ousmane Sonko kaawu Ousmane Sonko jàpp naa ni parce que bon il a fallu que à que ñu jege élection yi wala ñu def tête de liste nga xamante ni moom mooy président Ousmane Sonko rek coow loolu daal di jóg ndax boo fàttali Ousmane Sonko attaqué woon na fi wala sax daloon na ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy député benn Bokk Yaakaar yi donc euh, taxul woon sax benn moment ñu soulever li nga xamante ni moom mooy euh, ñàkk wala mën na bañ a demam fi nga xamante ni moom mooy euh, Assemblée nationale wala bon bokk ci ay liste mais fale a ñu tudd ci Ousmane Sonko jiite ko ci liste bi débat bi mën a ñëwaat mais bon pour man xëy na nit ñi dañuy débat ci côté boobu pour débat mais juridiquement jàpp naa ne Ousmane Sonko habilité na quand même bokk ci élection Digital TV. lan lan nga jàpp ne moo nekk ci ginnaaw recours yi ba takk wàllu Sénégal jàpp ne euh, war nañu mën a dugal recours contre Ousmane Sonko ragal Ousmane Sonko la wala euh, da nga jàpp ne dañu user ci li leen droit may ñu jàpp ne ku ñu condamné euh, daanaka waroo mën a bokk ci élection. waaw mais mais bon politique mënu si génn parce que xam nga ki nekk kaso à l'espace de une semaine par exemple tànn wala sax mu nekk kaso ci biir kaso bi tànn nit koo xamante ki muy tànn sax ma nga ci biir ñu ànd génnandoo kooku yàlla def mu nekk président kooku bu amee benn liberté wu war a def meeting normal euh, en temps plein kon jàpp naa dina indil jafe-jafe bu métti parce que boo fàttali ko meeting yi fi nekk yi fi passé élection présidentielle yi passé yi yëpp boo fàttali ko ñu ngi nekkoon ci euh, mois de de ramadan weeru koor la ñu nekkoon c' était un peu compliqué teewul génnoon nañ euh, ci koor gi sax naaj bi tàng mi nit ñi doon daw mais comme ñu ngi ci situation boo xamante ni c' est vrai nag dëkk bi xaw na métti tuuti ak Euh, ouverture euh, école yi ñu ñu nekk nii euh, xale yu bëri wala yaay yu bëri wala famille yu bëri ku nekk war a inscrire sa doom ak yeneen i mbir ak jafe-jafe dëkk bi ni ma xawee métti nii donc gëw ma ni sax dina impacter carrément ci ci campagne bi ndax Ousmane Sonko bon mu war a def campagne normale moom ak ay ñoñam jàpp naa ni nag y a de quoi être peur quoi en fait xam naa jàpp naa ni xëy na ragal mi ngi si mais bi ko yoon may na leen ko aussi donc doo leen ko bañal mais man jàpp naa ni politique moo ci gën a rax ak. tiit wala ragal Ousmane Sonko baat campagne euh, normale di jàkkaarloog ñoom. jàpp nga ne Ousmane Sonko war nañ ko mën a ragal période bi ci élection est-ce que ak li fi jot a jaar yëpp ak euh, diabolisation beeg yeneen yi ni mel est-ce que jàpp nga ne mu ngi peser lu mu doon peser bu njëkk ba bu toogee ne fal leen diw euh, ñu fal ko wala ñu jàpp ne moo doon fal député ak maire est-ce que Ousmane Sonko boobu ba léegi mooy exister aussi. waaw mais bon existence existence Ousmane Sonko mën nañ bon man jàpp naa mi ngi existé ba léegi donte jàpp naa am na ay quelques ay points yu ndaw yu wàññeeku parce que am na ñoo xam jamono bi di découragé loolu aussi foog ñu nangu ko du Sénégal yëpp quand ñoo approuvé euh, ndax mine ba ñu foloo ak lii am ñoo xam ne nañ ndax jàpp nañ ñenn ñi si nga xamante ni euh, seen liggéey daf ci yàqu ñoom jàpp nañu président Ousmane Sonko xëy na moo leen ko xañ xëy na li ñuy incarné jub jubante bi am na ñu Euh, ci euh, ci ci ci par ci la grande partie en fait des des sénégalais loolu tamit débat la mais moom man pour man jàpp naa li gën a bari ci sénégalais ñu ngi continuer di jox euh, Ousmane Sonko parce que bon sept mois la ñu toll environ sept mois yi gëmm ni sénégalais dinañ fi changé avis changer avis bu toll noonu xëy na nag yenn gox-goxaat yi nga xamante ni daan na fa gagné mën na jàpp ni mën na fa bañ a gagné waat mais pour man li gën a mag ci rawatina Ndakaaru gi nga xamante ni xëccoo bu metti moom moo fi am. après donc euh, man jàpp naa ni Ousmane Sonko mën na leen jiitu quand mën na leen jiitu. Hmm. kon mën nañu xaar mu am majorité wala. waaye waaye non majorité dina ko am mais bon ban majorité lay am nag mooy question bi mais majorité moom jàpp nañ ni parti Pastef mën hmm. mais ñu ñëwaat ci ci ci liste yi tuuti ak euh, composition rawatina bu Pastef ñu taxaw seetlu si euh, parce que temps yi débat bu ñuy soulever rek moom mooy daanaka lañ doon xaar ci qualité nit yi Pastef waroon a investir ci liste bi daanaka gisuñu ko ñu jàpp ne. Euh, tey suba sax yaa ngi soulever question mel noonu ñi ci nekk amuñu niveau pour dem biir assemblée nationale euh, est-ce que gis-gis boobu nga am ma laajaat la sa question bi. waaw ah, bu boobu dama toogoon di laaj <laughs> donc dama ko doon laaj li ñuy ñenn ñi di di xalaat mais bon sama avis avis personnel mooy. Hmm. en tout cas am na démocratie quand même bu ci nekk parce que comme ni ma ko waxee bu ñu demee bay boolee silmaxa ci li si loolu lu baax la quand hmm. euh, bu ñu boolee bay boole koo xamante ni way laagaloo également baax na bu ñu demee bay boole ay daara. pour man baax na parce que dafa jot quand même suñu euh, kilifa yi nga xamante ni yëngu ci wàllu daara ñu ñu may leen opportunité quand même ci xeexukaay ba ñu ñu participer si parce que tamit euh, pour man waruñu bedd kenn waruñu bedd ñett waruñu jàpp ni xëy na euh, ab sëriñu daara warul politique ndax politique moom xëy na. Hmm. bokk si li ñoŋal sa dëkkuwaay ak sa dundu réew la te pour man ku nekk loolu am na ci wàll. bon xam-xam bi sans dépend si nit ñi ni ñuy qualifié xam-xam parce que am na ñoo xamante ni xëy na dañu dañu gàtt gis-gis ba jàpp nañ ñi xam-xam moom mooy ki jàng français kii làkk ay tubaab yu nekk kooku mooy xam-xam ki am benn cursus euh, scolaire bu dëgër ki am benn diplôme yi koox moom moo moom mooy intellectuel te ñun nag ñu toll ni jàpp naan intellectuel ñoo ñu fa yóbbee parce que euh, luñ ci luñ ci mën a xam-xam-xam nañ ñi Sénégal malheureusement euh, au temps de Senghor ba nii ay intellectuel xëy na ñoom ñoo doon faral nekk député bi xëy na sax bu Macky Sall bi sax ndegam Macky Sall moom moo sañ ji jël ku ko neex di dugal ci assemblée nationale bañ fay wax lu leen neex donc jàpp naa ni du ma ni sax loolu lu normal la que Sonko da ko war a def mais ku ne dugal na ku ne ku ne ku ne assemblée nationale bu mu des laago yi amoon na opportunité bi. Hmm. amoon na pouvoir bi amoon na lépp mais malheureusement ma def ko Ousmane Sonko comme. jël na benn way laago def ko huitième position liste nationale donc hmm. kooku xam ne ci loolu waaye waaye waaye dix-huitième voilà pour man même dix-huitième liste nationale am na mille sens quand même pour pour nekk député donc voilà pour man daal euh, loolu sens la bu rëy la boo xamante ni offrir na ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy way laago mais également wan na Sénégalais yi ni euh, voilà ñun beddewuñ kenn ndax euh, soxna soosu nga xamante moo dëkk Touba tey bu demee ba di représenter wala dem wala représenter ay ay ay ay naataangoom ci ci jafe-jafe wér gu yaram wala santé lu bëri bëri dina ko mën a kaas seen i nekkin parce que boo xoolee administration sénégalaise bi malheureusement sóoraale wu ñu way laago yi ci euh, yéeg beeg wàcc bi. Mm-hmm. loolu yëpp dina rek ay xeex yoo xamante ni moom dina ko dina a a jàppale accompagner leen. quoi bu dafay wax te buy wax dañ koy déglu parce li muy wax moom loolu la doon d' abord. Mm. keneen kuy euh, wax ci turu ñoo xamante ni moom nekkoo sax ci euh, situation bi du dundoo ko te xamoo ko. dundoo ko te xamoo ko mais Ouzin mm. bi moom dama la koy laaj en tant que ku nekk ci terrain bi di jot ay xibaar di jot ay information mooy ba tey